ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك rayee reyub jullit ba noppi yéene ci bépp doomu aadama buy dund te nekk ci njàqare ak tolof-tolof dama ko jël yóbbu ko ci benn boulangerie ñu defal ma ko mis wi ma fay xaalis bu bari ginnaaw bi ma ko defee mis wi ma daal di koy def ci ay barget yàpp ko ci sama oto ànd ak pate suma ak bay wuri ba bisub tabaski ñëpp tal seen bopp ak seen njaboot ñun ñu tal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbedd mi te gisuñu ndey gisuñu baay gisuñu kenn ku leen toppatoo nit ñi won leen ginnaaw ngir tawat bu metti bi nga xamante ni moom la leen yàlla suñu borom teg te defuñu yàlla lu tax yàlla teg leen tawat boobu bi ñu demee di jox jaami yàlla yi barkeelu yu ba egg fi nga xamante ni moo di rond point Petersen ci la ñu dajeeg jenn jëmm mu ni dangeen di joxe ay barkeelu ñu ni ko waaw mu ni am na góor gu tëdd fële soxla na barkeelu yi bi ñu eggee fekk Baye Mouhamed Ndiaye fi mu tëdd tànk yi mënul dox mënul dem fenn lépp lu muy def sur place la koy def ñu daal di koy jox barkelu yi yàpp bi sax munu ko lekk lu dul di ko macc mu nekk koo xamante ni bi ñu ko laajee ay kàddu xamal nañu ni dafa amoon jafe-jafey téléphone yoonu Sénégal teg ko loxo tëj ko ñeenti atu kaso bi muy génn nag ñu génne ko sànni ko foofu xamatul fu mu jëm xamatul ay mbokkam moom Baye Mohamed Ndiaye ñu jël ko yóbbu ko hôpital psychiatrique bu Thiaroye hospitalisé ko fa 49 jours sunu borom dogal bisub le 29 septembre bi ci la génnoon àdduna tey jii ñu doon mu doon bisub fàttaliku tey doon bisub ñaan delloo ko njukkal ndeem ñi nga xamante ni xamuñu leen lu dul ci mbedd mi la ñuy dajeek ñoom ñoom la ñuy taxawu taxawu leen taxawaay bu rafet ñaanal leen wàcceel leen kaamilu alxuraan loolee dina wane ni duñu fàtte kenn du sunu mbokk du sunu dëkkandoo du sunuy xarit képp kum mënti doon ci kaw suuf sunu baay dafa ñaanoon yàlla bis bu may am tu tànk yàlla na doon magum diine yàlla na doon magum islaam yàlla na doon mag mu am yërmënde te mën a yërëm jaam ñi di leen dimbali ci lam leen tane loolee tax sunu bàyyu tedd yi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu diine ji ñoom ñi nga xamante ni dëkkoon nañoo ak sunu wayjur wu tedd wa di may sa Biige Ñang ak Fatou Diop ñing bu leen neexoon ni ñii kat ay ndaw lañ ñi ngi topp seen bànneexu bakkan dox ci seen yoonu bopp su ñu woowee ci mbirum alxuraan duñ leen ci wuyu waaye ñu wuyuñu ñu ñëw jamono bu nekk ki nga xamante ni moo di imaam li di sunu baay di sunu dëkkandoo wax dëgg yàlla di ñu wammat ci islam di ko ñaanal yàlla sunu borom yàlla yàggal ko ci sunu kanam ak mbooleem sunu baay yi nga xamante ni dundandoo woon nañu ak sunu wéjur wu tedd wi fii nga xamante ni mooy diwaanu benn brak fii ci quartier Baye Baara Cubb sunu Baye Baara Cubb gisuñu ko waaye mel na ni gis nañ ko waaye fu mu nekk ñu ngi koy ñaanal yal na ko fa jàmm téye ak wér di ko jaale doomam ji nga xamante ni mooy Cheikh Cubb mi nga xamante ni moo fi bàyyeekoo ay fan ci ginnaaw yéene nañ képp kuy doomu aadama ci ñaan gi te bokk dëkkoon ak ñun fii ci koñ bi ñaan gi ñu ngi koy ñu ngi ñaanal yàlla képp koo xamante ni jamono jii malaaka mawti ganesi na ko mu fas yéenee génn àdduna dem ci beneen dëkk boo xamante ni bàyyeekoo wu xamul lan la fay fekk ñu ngi koy boole ci ñaan gi tey ñaan yàlla yal na sukura sukuraatam soosu sedd ñaan gi yal na ko xaree àjjana si yàllaahu ñu ngi sant sunu baay yëpp di gërëm ñëpp di sant sunu grand frère bi nga xamante ni ba sunu baay demee ba léegi jooyu ñu ko ndax moom muy mbay mu ñang ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla yàggal taxawaayam ci sunu kanam ñu ngi ñaanal sunu rakk yeeg sunu soxna yeeg sunu dëkkandoo yeeg di ñaanal particulièrement association ànd taxawuñu wéré di te yàlla rek tax ñuy jël seen dund geeg lépp jébbal ko yàlla taxawu jaami yàlla yi te yàlla rek tax di ñaanal membre yi nga xamante ni ñoo ci bokk nekk ci diaspora bi nekk ci biir réew mi ak fu ñu mënti nekk ñu ngi leen di ñaanal yàlla mi nga xamante ni moo am fay yàlla na leen yàlla fay ñu ngi ñaanal yàlla jaami yàlla yi nga xamante ni ñoo am feebaru xel yàlla na sunu borom yàlla na borom yërëm leen yàlla na sunu borom wàcce ci ñoom ngërmande yàlla na yàlla teggil leen nattu bi bu dee moo gën ci ñoom bu dee gënul ci ñoom yàlla na leen yàlla teggil natt bi ëllëg yomal xiyam ba mu doon àjjanay si ñoo ngi ñaanal képp ku fi nekk ak képp ku fi nekkul ñu ngi ñaan sunu baay yi ñu ñaanal association bi nga xamante ni jiite naa ko te xalaat bu sell bi yàlla wàcce ko ci sama jëmm ji ñoo ngi sàkku ci ñoom ñu ñaanal ñu ñaanal ñu ñaanal ñu ngir lañu ci yéene muy ak jaamu yàlla kese lañu ci yéene muy sàkku ngërmande yàlla kese la ñu ci yéene muy dab bànneexu sunu borom kese yàlla nañu ko sunu borom defal sunu dund gi ba ëllëg yomal xiyaamatul akbaru jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf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 Baye Aliou mënuñoo sant ba sant jeex te santuñu sunu wayjur wu tedd wii nga xamante ni nit ku baax la nit ku laabiir la nit ku bëgg liggéeyub yàlla bi la bitim réew la nekk di fa liggéey ci wàllu social waaye jamono bi nga xamante ni xam na association ànd taxawuñu wéré di ak léegi boobaak léegi nelawatul guddi nelawatul bëccëg. maaleykum Pape jërëjëf. man toujours dama lay naa jërëjëf ndax li ngay def yombul ci xale yi léegi yi man nag dama ko doon def bi ma fi nekkee di seet social ay xale yoo xam ne seen yaay dundul ak ñoo xam ne dañuy sayte seen moyen bariwul ma di leen jàppale maa ngi dëkk Pikine ay sa soori njim lañu may woowee ma jiitu fa benn groupe bu ñu naan Fonk Sénégal may dox ci loolu ba yàlla dimbali ma am ay partenaires ñooñu tëyal ma xale yi tëyal ma presque jéeg yu ndaw yi di leen dimbali ñuy liggéey may jàngale cere di jàngale cuub du ne ma jàngal jeeg yi ba léegi la koñ boobu tane na bu baax su ma gisee nag kuy def lii may def aw ma doom bu koy def aw ma rakk bu koy def ma gis ku koy def su ma munee di ko jàppale dama koy jàppale pab yow yow la la yàlla jàppale kontaan nañ ci loolu kuy liggéey yàlla tamit du sonn yow yàlla moo tax ngay liggéey liggéeyloo kenn de sa bopp rek ngay liggéeyal ak yàlla bu la kenn tara xaddi démb dégg naa la li nga wax yëpp waaye boo toppee ñooñu ba xam fu ñu dëkk ñu seen bop njëriñ sax ba amal keneen njëriñ kon ñoñu duma leen top yo topal liggey bi kon nag yéen ñëpp ba ci ñom adam seen xalé yi nga andal yeb ma ngi leen di gërëm di leen sante dama kontaan ci yow pap li sama dundu neena samay dom lu des sama dundu ay politique ak yoy yeb bayina lu dul lu jëm ci and taxaw wëri di dootuma ko defati luma for ak luma xam dana ko wax sama ñaan dana leen ko na yàlla tey bu ma ba ñaan dama la ci tek pap mané yalla na la yalla may xol boo muñee fajar bi ma jullee danaa dama laa ñaanal beral la waaw kon nag yàlla na la yàlla jàppale li ngay def liggéeyal yàlla la de man de munatuma ko ndax mag laa tey jii su ma toll woon fu ngeen toll yàlla xam ne du ngeen ma bàyyi gannaaw ndax bu ngeen sangee danaa sàng bu ngeen fóotee dinaa fóot tey xëy na mënatuma ndax maa ngi sama juróom-ñaar fukki at yu manqué benn dootuma xale waaye incha allah fas naa yéene sama desati dund bii ànd ak yéen ba fu mu yem neex jaajëf Baye Aliou jaajëfal nañ mbokk ami internet yëpp ak képp kuy bàyyi xel an taxawu ñu wére di te yàlla tax ki nga xamante ni moom la jox kàddu naam ñi nga xamante ni ñooy bàyyi xel an taxawu ñu wére di ci réseaux sociaux yi ñu bari daanaka duñ koy dégg muy kàddu lu bari ndax daf daan faral di wax naan wax lu tuuti jëf lu bari mu mel ni sax jëfam ji daa lekk wax ji ndax sax doo koy faral di dégg mu nekk bay Pape Seck ñu gën koo xam ci Pape Mbaye képp ku nekk géejawaay xam ko ci ab yar ak teggin ba mu bokkee ci association an taxawu ñu wéré di ba léegi mësta soppeeku mësta changé mësta fas kanamam lépp lu muy def liggéeyub yàlla bi dong moom moo ko ñor Baye Pape bëri na yërmande Baye Pape day dox sax koo xamante ne nii nekkul sax malade mental mu romb ko rek am ci moom yërmande day dugg jël otoom so def ci barkelu dugg fa teral ko te buggul ku ko xam man mi amna luma ma ci xam bay pap nek jëm jo xamanteni nek ci association taxawu ñu wéradi chargé comité recherche de fonds ak relation extérieure ba nopi nek polyvalent di ngeen koy faral di gis ci vidéo yi waye ak yar gu mat sëkk bay pap mësta xeelu doomu aadama ci association taxawu ñu wéradi mësu ci jappanté mësu ci xulo suñu nekké ci terrain bi même bu ñu nekkee di déconné sax day ñëw modérer lépp dalal ñëpp uuf ñu ci kanamam wax dëgg yàlla jooyu ñu mag ndax moom jooyu ñu grand frère ndax moom ndax bëgg na ànd taxawu ñu wéradi guddeeg bëccëg ak ngoon bay Pape luy doxal liggéey bi te li ma gën a neex ci moom moom bay Pape sekk mii toog yàlla suñu borom seede na ni donte ni membre la ci association bi am na droit ak i dogal waaye du dugg ci dara te waxuma du wax dara te dugg te laajuma ci sama xalaat lépp loo xamante ni tey bari na télévision yi ñu dalal yàlla nga ko jaarale ci loxoom de ba kër gi ñu daloon Touba yàlla nga ko jaarale ci loxoom de waaye bay Pape du wax dara Baye Pape yàlla nanu la sunu borom fayal ñu yëkkati kàddu gi jébbal ko ko ñëpp déglu ay kàddoom te xam ni kàddu yi njariñ moo fi nar a wàcc nekk koo xamante ni dañ koy bàyyeek yàlla sunu borom ndax dañuy wax ni bu association an taxawu ñu wéri di wala bu Sénégal amoon juróom yu mel ni Baye pap Seck damay wax ni kon safara gental Baye pap yalla na la yalla fay. assalamu alaykum rahmatullah mbokki aduna ñu ngi nuyu ñep di nuyu waa association Ande taxaw ñu wéradi di jaajeufal bép membre di jaajeufal wa diaspora bi di wax alhamdullilah rabbil alamin bis bi yalla dogalé ñu tew fi tay di fàttaliku suñu mbokk bo xamanteni ni mbokk doomu adama la yalla dogalon ci dundam mu nek malade mental ñu for ko ci mbedd bi taxawu ko nekk ak mom hôpital ba yalla defna jël ko ñu jël ko topato ko sang ko def ko li ñi defal julit yobbu ko armée armeele denc ko di wax ni yalla nako yalla ci si bi ñu dogal si mom ba dimbali ko non dama yalla na yàlla dimbali bepp mbolam doomu adama di wax ni bis bi daal bisu sante la bisu gërem la bisu ñaan la di gërem bepp membre association en taxaw ñu wéré di di wax ni ñu ngi koy bëggé bu baax di wax ni liggéey bi dal ñu ngi siy woo doomu adama ñu jàpp si liggéey bi te yàlla tax ndax euh, jëmm ji tey ji Baye Mouhamed Ndiaye mbokk si nañu ci yi nga xam ne dañu hôpital nekk ak moom ba ni yàlla wàccee li mu wàccee si moom ba ñu denc ko di wax ni daal si barkeem yàlla na yàlla yërëm jaam ñëpp incha allah. bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ah, ñu ngi nuyu mbokk jullit yi di sant yàlla bu baax a baax a baax ci bis bi di ñaanuk Baye Mouhamed Ndiaye di góor gu sell gu nga xamante ni suñu borom boole woon ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey muy dimbali malade mental yi waaw moom nag mu ci kenn koo xamante ni jox na suñu biir euh, waaye yàggul suñu biir waaye bàyyi na fi loo xamante ni mën nañ mën nañ ne mën nañoo dund ak moom ba keroog ñuy sàngoo suuf kon tey buñ teewaatam buñ teewaat ñaanam ñu wàccal ko kaamil euh, togg barkeelu jox jaamu yàlla ñu barkeelu dañ ciy sant yàlla di wax ne kaamil kaamil gi ñu koy jàngal tey wàccal ko kaamil tey saraxal ko ah, lépp lu fi yiiw rek yàlla na doon njëriñu àdduna wërngal këpp lépp lu fi yiiw ak jàmm ak salaam yàlla na doon eh, njëriñu àdduna wërngal këpp di sant yàlla bu baax nag ndax eh, moom am na lu bëri loo xamante ne si ni waxoon na ma ko ci jamono yi may nekk ak moom ba tax na eh, bi mu tëddoo baa ñu fii ci kaw suuf man dugg naa ci biir association Ande Taxawu ñu Wëradi di sàkku ci jaam yi ne leen sakk at bu dellusee di bis bi nga xamante ne si la Baye Mouhamed Ndiaye wàccoon liggéey ne leen ko wàcceel kaamil mu mel tamit président Baye Pape Niang da ko yëg mu am ci Pastef lool bàyyi ci xel bu baax baax a baax baax baax ba saa su nekk rek mu koy bàyyi ci xelu jaam ñi ah, ba jaam ñëpp tamit bàyyi seen xel tey ñu wàccal ko kaamil ñaanal ko fi ay ñaanu am solo ah, kon dañ ciy sant yàlla di wax ne lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko fekk fa mu tëdd te doon lu sedd guy ci moom waaw di ko ñaanal saa su nekk rek di wax ne ah, yàlla na sedd si kawam yàlla na suñu borom gërëm ak delloom Ah, te xaare ko ci àddina yi gën a kawe di wax ne góor gu góor gu yéeme la amaana dëddu na dem na bàyyi nañu fi ba tax na ñu wax lu bëri ci ginnaawam waaye daal ah, góor gu yéeme la góor gu yéeme la góor gu yéeme la yàlla suuf sedd si kawam ñu ngi sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax a baax ci bisam bii tey day war na ne rek góor gu fee mu nekk mu ngi ci tawféex ndax tey liñ fi wàccee ci ay kaamil yaakaar naa saari fi wàccee di ay ay ay ay tur sell yoo xamante ni yëpp day delluwaat ci borom bi kon dañu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di wax ne amaana xol a ba tax na mënu ñoo sarsarale ci kàddu waaye daal ñu sant yàlla bu baax a baax a baax di jaajëfal association ànd taxuñu wéri di euh, dalee ko ci président Baye Pape Niang ba ba ki ci gën a tuuti rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne yàlla ngeen fi yàgg te wér association ànd taxuñu wéri di ndax seen taxawaay am na solo trop jaajëf alhamdulilah rabbi alamin ñi sant yàlla bu baax a baax bu ñu yàlla mayee gudd fan ba ñu teewaat bésu sunu baay Mouhamed Ndiaye euh, ñu wàcceel ko fi kaamir ñuy wax euh, lépp ñu fi ñaan yàlla na ko fekk fee mu tëdd ak ñi ko fa fekk ak ñi fa fekk yëpp ci barke Seydina Mouhamed di ñaanal waa association ànd taxaw ñu wéradi ñu yàgg fi lool yàgg koo ñaanal di wax ne que macha allah euh, lii am na solo Baye Mouhamed Ndiaye xaw ma de mais xam naa ne mus na defal yàlla loo xamante ne suñu borom gërëm na ko ndax fi ko waa ànd taxaw ñu wéradi fekk. ak fi ko yóbbu ba ba muy génn àdduna macha allah kon am na cër si sunu boppam. وارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر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 alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi dellu di santat yalla suñu borom mom mi nga xamanteni ni no nu ba ci bërëb bi nga xamanteni ni fi la bay mohammed ndjay teddon bis bi nga xamanteni ni ñu ngi ko doon jël bisub tabaski fi ci rond point Petersen lañ ko fekkon fi lañ ko doon jappalé fi lañ ko lajé won turu papa mak turu yaayam fii la ñu doon waxee kàddu yoo daw yaram yooyu moom Baye Mouhamed Ndiaye bés bii tey di la 29 septembre 2021 bii ñu nekk ci lay am atum yàlla ci biir bàmmeelam benn mala yaakaar ci moom deux cent mille boo ko ba noppi sànni ko ca mbedd ma mu jaaxle lool heure ndékki bu jotee du ndékki bu heure añ jotee du añ kenn da nga ko dugg lijjanti loo ndékkee bu heure añ jotee mi nga xamante suñu borom dafa wàcc ci moom tawatu wéri xel ana tey bu heure ndékki jotee fan lay ndékkee bu heure añ jotee fan lay añee te ñi nga xamante ñoom la yaakaar ni bu demee ci ñoom dinañ ko dimbali ci lu mu lekk dañ koy toroxal ba noppi daal di koy toroxal sànni ko ca mbedd ma te ñoom ñun ci ñun lañu bokk nañu xam ne malade mental yi ci ñun lañu bokk jàmm rek ni ngay dundee ci mbedd mi ak ni nga dundee ci kaso bi ban moo ci tane ni nga dundee ci kaso bi moo tane ni nga dund ci mbedd mi moo tane waaye tey ngir barkeem yërmandeem ak coono àdduna bi mu daj moo waral tey sunu teewaay fii ñu togg ay ceebu ginaar yu yaatu ngir jëmmi baay Mouhamed Ndiaye ngir ngir Baye Mouhamed Ndiaye mi nga xamante ni jëlee nañ ko fii ci mbedd mi fii la ko fekkoon moo tax fii la ñu war a tàmbalee def li nga xamante ni mooy distribution bi képp koo xamante ni jox nañ ko fii ay barkellu ñu ngi ko ko jox te yàlla rek tax jox ko ko ci barkeb bay Mouhamed Ndiaye ñaan yàlla suñ borom mu doon ngërmandeem bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg nga jox sa moroomum jàmmu lekk te yàlla rek tax kon tey képp ku ñu fi jox lekk na mu neexee na nga ciy yëge sa bopp na muy dindee sa xiif yàlla na ko yàlla suñu borom jéggalee bay Mouhamed Ndiaye xaree ko ko àjjana yërëm ko tas ko ci barkeem suñu borom fay ko ci ay yiw ba armeel ya mu tëdd di armeelu yoof képp ku fa nekk suñu borom jéggal ko ngir jëmmi Baye Mouhamed Ndiaye ngir maqaamaam ngir ay leeram kon yalna yalla yok ay leeram ta tass ñu ci barkem ñu ngi ñaanal ñepp kep kuy doom adam ñu ngi lay ñaanal kon dañuy tambali joxe li nga xamanteni mom modi di barkelu yi te jëmmi yalla rek tax ak ndox yu sedd guuy ni ndox yu seddee kep ko xamanteni ni nañu ci Baye Mohamed Ndiaye ba mu génnee àdduna na sa xol dekké di sedd ba yamal xiyam suñu borom seral sa xol tabbal la aljana ni boisson yi nexé ta saf suukar nehe na sunu borom nexalé sen dundu ak sen njabot ak seen soxna ak kep ku len xam ak ku ngeen xam Baye Ndiaye dem na waaye mi ngi des ci suñuy xol duñu ko fàtte benn yoon bis bi saa bu yegsee daan ñu togg ay barkelu daañu wàcce ay kaamilu alxuraan daañu ko ñaanal yàlla suñu borom ndax ku képp koo xam ni yàlla boole nañu ak yow du la bàyyi ba ilaa yow middin yàlla na bokk ci ña ñuy teeru ëllëg yomal xiyaam àjjanay si ñu ngi ànd ci terrain bi ak Baye Paté suma moom lañ àndaloon ñu ngi ànd ci terrain bi ak Baye Mbay ka urgent ñu ngi ànd ci terrain bi ak ki nga xam mooy Baye Wuri Ba moom lañ fi àndaloon ñu ngi ànd ak yaa Adama seen ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni moom moo di soxna Kiné saw ak suñu jinney caméraman yi di ki nga xam ni moom mooy Seydina Aline Ndiambe TV di bëgge ñëpp di leen sant ñu tàmbali liggéey bi yàlla na ci yàlla defal ñëpp jàmm ami internet yi tamit ñu ngi leen ci ñaanal lépp lu ngeen bëgg yàlla na leen ko sunu borom defal yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen yàlla teral yàlla na leen yàlla jàmmal yàlla na leen yàlla suturaal yàlla na yàlla defal leen lépp ci barke Baye Mohamed Ndiaye mi nga xamante ni dëddu na wane ginnaaw waaye ba tey mu ngi des ci suñuy xol ñu dem fii ci Petersen dimbali jaami yàlla yi fi nekk yëpp ak lépp li wër fi doomu adama bu fi nek ñu fassiyene la jox ci barkelu yi nga barkelu ñamu neex ngir jëmi bay mo amene jaay te yàlla rek tax jërë ngeen jëf وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ya رب alamin إلهنا قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها إصلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولنا 来一个啊！要不要？一个一个一个，要。多少钱？Money? No. No. No money. No money. No money. Okay. Apa nak? You mana mana? Anak anak. Tentu. لوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين اللهم وفقهم للخير وأعنهم عليه اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الله الرحمن الرحيم لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا تمام بنغا نانال محمد je m'appelle Ngono. Tu, t'appelles Je m'appelle Ngono. Ngono Je veux que tu fasses une prière à notre cher parent qui est décédé il y a un an. Il s'appelle euh, Baye euh, euh, je m'appelle Baye Moussa moi-même. C'est la même marque que ça, Baye Mais entre vous, je me souhaite euh, votre jour de Ovel, que vous faites de bons choix dans tous les domaines, que vous payez parce que dans la vie, le pôle, ça fait mal. Et encore, je pense, je me prends mon place et à tout le monde. Donc, euh, je me souhaite euh, votre jeu de faire ouvert. Mais si c'est pour quelques temps, d'où a fait le bon choix. Mais si ce n'est pas arrivé partout, même par quelques nombres, de a même on sait. Parce que. Merci. alal ko rek mooy sunu bu génn àdduna Mouhamed Ndiaye ñu dañoo bëggoon rek nga ñaanalal lay am atum yàlla ba pare ñaanal ma kii jëmb ji nga xam seen waajur la te mu génn àdduna ñu koy kalaame ki nga xamante ne moo Serigne Mbacké li ngeen ma jox ni ma neexee di seet nii yàlla na am lu ko foofee mu nekk ci kàttan suñu Fall Mbacké doole même sala bëgg Alaaji Fall Mbacké te incha allah bu soobee sëñ Touba dina nekk bëgg suñu Fall Mbacké mi ngi yàlla yi nga na wax dëgg yàlla kon bu yàlla suñu borom ne dina wàcce jant bi ba mu tiim yuuru jaam ñi ñii seen yuur yi di bax kon war na nañoo fàttaliku bis boobu xam ne dana yëgsi te dana dal kenn ku nekk ci ñun nañu ko waajal balaa ñu ñuy waajal wax dëgg yàlla ndax waxtu wi jot na naaj na nag naaj na de te tàng na jër kon ñi ci bàmmeel yi fa ñu nekk tàng na yal yàlla gërëm sunu baay Mohamed Ndiaye yal na ko yàlla xaree àjjana ànd taxawu ñu wér di la solution des malades ñu ngi sur le terrain di distribuer barkeelu day xëy na yàgg fii dafa day day waral ni xam nga ku nekk euh, dina am euh, yéene boo xamante ni dina dina ko demee ba xam ni xam nga nit ku nekk rek fu nga toll war nga di góorgóorlu daal góorgóorlu te góorgóorlu te xam ni euh, dañ fi yàgg rek waaye li muy yàgg-yàgg rek xam nga dafa am foo xam dañ fay mujj quoi dañ fay mujj daal ndax ndax ndax tamit xam nga fii dafa doon foo xam ni moom waaw lu fi mën a def rek xëy na dafa am lu lu waral ñu jaar fi moo tax dinañ ko fi def daal te te te te li waral ñu ñëw fi moom waaw day doon loo xamante ni tamit euh, day mën a doon euh, sunu njëriñ tey ndax xam nga ëllëg tamit nit ñi dañuy ñaan xëy na di di di bokk loo xam ne bokkoon nañ ko di di di di di euh, loo xam ne maanaam lan ngay lan xam ne nga xamante ni seen i mbokk biñ dafa mel ni dañ leen a fàtte duñ leen di ñaanal lan nga leen di wax Euh, waaw waaw lu ma leen wax nii rek waaw mooy xam nga soo xool moom xam nga dafa doon loo xamante ni euh, euh, jamono dafay tax ni xam nga loo xamante ni soo demee ba ngay dox sax ñu la koy yëgal ni xëy na maanaam dafa am loo xamante ni dafa am mooy mooy mooy faatu daal. dee dafa am daal te te te comme xëy na dee dafa am daal am na loo xamante ni saa yu xewee rek xëy na dañuy war a mën a ñaanal nit ki ci jamono bi nga xamante ni waxtu la loolu am. ay mbokkam euh, mën ko defar defar bu bi nga xamante ni euh, gën na ci niñ ko war a defee daal. jërëjëf jërëjëf ak saa yëkkun bàyyi leen ci xel ki ko wax àndul ak xelam waaye li mu wax lépp dafa tegu ci xel tegu ci xam-xam tegu ci yërmande duñu ay dof sunu borom ay nëbb lu bari ci ñoom nañu bàyyi baax taxawuñu wér. dafa am suñu ben bay buñu wax Baay mohammed ndjay dafa genn aduna daw ren nak day day am day door am at demb ñu bëgg nga ñaan ko te yalla tax. wax nga dëgg kay bu ko dëgg yalla ko yalla dafa yàlla na yalla na ko yàlla xaar aduna fi daw ci ren yalla na suuf sedd si kawam ren ñu nga dëgg yoof yoof waaye nga dëgg yàlla na ko yàlla xaar lañ ko waaw waaw da nga wax ko dee mo da nga wax ku dee moo kan <laughs> الله اكبر جاجب ديرو باكر جاجب يا جاجب تمام آه، رك سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Salam. Gardens. nan café quoi. waaw mais añ ngi nii amna na ceeb boisson amna ndox jox ko benn sama xarit la. No tudd. Omar. Omar Korea. Omar Korea. waaw Omar dafa am suñu ben baye bo xamne dafa laq won euh ci aduna am at le dañ bëgg na nga ñaanal koy suñu borom xaare ko aljana inshallah inshallah bay muhammad ndjay bay muhammad ndjay Mouhamed Ndiaye moom incha allah Baye Mouhamed Ndiaye. tëdd moom incha allah lépp jàmm quoi. oui lépp mais muy. no inshallah lepp lepp lépp dina bax ko waaw lepp dina ñu lay jaajëfal bay amul wey amul ben wa jëla añ bi nga ñay borom ta nga ñaanal bay muhammad ndjay bu baax de nga. amul ben problème lepp dina ñew xewal gi dina ñew lepp inshallah yaram lépp mooy jaajëf ah waaw tey dafa am suñu benn baay boo xam ne dafa génn àdduna am na at ñu toogoon ay barkeelu nag di ko jox jaamu yàlla ñu bëggoon rek nga ñaanal ko suñu borom xaare ko àjjana si doole laa ilaha illallah. waay na ko yàlla yërëm yàlla xaare ko àjjana jërëjëf na ko yàlla yërëm rek. tuub naa bu baax. waaw jërëjëf dëgg la dëgg ku baax. xam nga jox laa ko garaawal ñu dem bu jaam naka coono waaw dañoo bëggoon nga ñaanal Baye Mouhamed Ndiaye suñ borom ne daa génn <laughs> ah. seet fi ndox ndox fi waaye moom dañuy ñaan mais kàqari taay. yan bés ñu ñaan. loolu ñaanal nak suñu benn bay boy bo xamne mo waral ñu def lii daa làkk won gennon aduna bo bëgg léegi def na at ñu ko doon ñaanal nak tax ñu def barkendu yi di genn diko joxe ñaanal ko yalla yërëm ko xaare ko aljana àjjana mm. xeebuñu ñaanu kenn yalla yërëm te xare nu aljana te boole nu ndimbal ak yërmande defal leen gudd fan ak ak xiwal ñu sax dak di jaaw jëm kanam amin jërëjëf yaay booy. jërëjëf jërëjëf. ku baax naka man la Ameth. Amady. waaw noo sant. Diallo. Ndiaye. est-ce que jox ko mu ak bu baax. waaw am suñu suñu suñu baay bu baax nag bu génne àdduna daaw. tey mooy bisu saraxam ñu bëggoon nga ñaanal ko suñu borom xaare ko àjjana Baye Mouhamed Ndiaye la tudd. waaw kon ok yàlla na xéwal yokku ci bu baax a baax na xéwal yokku bu baax a baax. ñaanal ko bu baax. waaw kon yàlla xéwal yokku bu baax a baax. tawfeex jëlal barkeelu nga barkeelu. baax na mën nga ko teg ci suuf nga defar nga defar toogaay bi après nga teg ko noonu. jaajëf. waaw jox ko jox ko añ. waaw doo xamal nag. aduna tay lañ koy saraxal ñu bëgg nga ñaanal ko suñu borom ko àjjana. merci. tu peux pas parler wala merci merci. merci. c'est bon c'est merci. Hmm. comment tu t'appelles? Papa. Papa. Mm-hmm. tu habites où? ah. tu connais mm-hmm. on a un parent décédé. Oui. On voudrait que tu formules des prières pour lui. Oui. Pour que son âme repose en paix. Merci, merci, monsieur. Je présente les, mes Merci.

danaa wax leen nag. seen tur yi nekk seen carte d'identité bu leen ko kenn ku dul seen mbokk sinon bokk ko waxee daf la yóbbu ñu bari ñu ngi dee hôpital bu leen parce que bi benn maladie lan la kitaabil aziz moom lañ leen reyee ah démb démb rek ñetti rob jaar na fi ah ñu ne kitaabil aziz jàmm yaa rabbi الله أكبر siar ma am nga jam añ nga pare añ bi lañ indi wo añ bi lañ indi ah wa nga bal ma ki bi caméra bi joxe suñu yaay añ no dañu bëggoon nga ñaanal suñu benn baay muhammed Ndiaye yalla gërëm ah bu ko caméra bu ko caméra suñu benn baay mo génn aduna ñuko doon joxal sarax ñu bëggoon nga ñaanal ko suñu benn ah. dafa génn àdduna ah. tey mooy sarax si ah. ñu doon defar lekk yi ak naan yi di ko jox nit ñi pour ñu ñaanal ko yàlla mooy kan nu mu tudd Mohamed Ndiaye la la nekk moom dafa gaañu ah RTS waaw na fu mu nekk moom ban kii la nekk léegi gaañu na <laughs> man li ngeen wax nii xaw na kii ci man. ah waaw yal na yàlla nangu sarax bi. te xare ko xare ko àjjana. amiin yaa tànk yi ngeen ci taxaw yal na leen yàlla fay leen.

fi ngay nekk chaque jour bokk. waaw. Ah. Hmm. añal ko Paris.